muy ay dëj yu ñu am ci suñuy collaborateurs muy loo xam ne metti na trop métti na ci Sénégal yépp naka nag si ñun ñii nga xam ne ñoo doon xëyandoog ñoom di yendoog ñoom di fanaan ak ñoom léeg-léeg ci condition yoo xam ne yu jafe-jafe la kon maa ngi ubbee sama kàddu ci jaale Sénégal yépp jaale coalition bi di ñaan suñu collaborateur yooyu suuf sedd seen kaw yàlla xaare leen àjjana xool nañ lu yàgg balaa ñuy ñëw teew ci lii ndax dëj bu tooy la rongoñ yi feragul waaye jàpp nañ ni ñoom ñoo ñu dem lii woon seen gëm-gëm ak seen bëgg-bëgg ci Sénégal ba fu ma mus ne ña nga fa fu ma mus a jàkkoonte jafe-jafe ña nga fa ñenn ci moom biñ may jàpp ci mois de mars maag ñoom la jàppandoo ñu dem nekk brigade de section de recherche pendant cinq jours kon bu dee mbir bi tolloon na leen foofu niñ leen mu ne delloo njukkal mooy du tëju di jooy waaye li taxoon ñuy yëngatu ak li woon seen gëm-gëm ñu fexe ba tey ñu gën a dëgëral taxawaay ba loolu sotti te loolu mooy lii kon defe naa wax ji nit ñi tënk nañ ko ba noppi tey ci suñu recensement président Déthié jotul woon dugg ci détail bi waaye defe naa Matam Gorée Foundiougne département Golfe Sud ci Peulh Kaffrine département Sam Notaire Saint-Louis département Gandon Mbour ville et département Kédougou commune Pikine ville Sandiara Sabodala Xosanto def naa loolu la ñu recensé gul su ñu nee nag ñu xam ni communes yu bëri la du benn commune département bi yëpp la daanaka. kon loolu lu coalition Yewwi Askan mënul nangu la parce que élection yi dafa am enjeu yu bëri nit ñi dañ naan élection locale rek mais weesu na élection locale parce que keroog le 23 janvier 2023 22 suñu si yàlla yóbbu si jàmm incha allah bu ñu toogee ba guddi du ñu lim rek. ville yi nga xam ne moom la nit ñi gën a séenu kan moo ko gañe duñu lim rek kenn ku nekk ñaata commune nga gañe waaye dañuy boole lim ne kenn ku ne ban pourcentage nga am ci vote bi ku ne woon amoon naa 58 pour cent ndax dangaa des 58 pour cent wala wàcc nga cinquante wala yaa ngi quarante kon commune bu ne rek commune bu am importance la ci nit ñi amul commune bu ñu xeeb boo gañewul it la fay fortaatu ci ay voix day ñëw ci cagnotte national bi bu ñu waree def la décompte moo tax Yewwi Askan Wi góor-góorlu ba investir fépp xam ngeen investir fépp yombut coalition yi ko mën bariwul de liggéey bu rëy rëy la ci ay fani fan wala ay weeri weer ay guddi yoo xam ne nelawuñu loolu di liggéey bu ndaw parce que dañu xamoon lan mooy enjeu bi ne waruñoo xeeb benn voix te lii ñuy doxal nii commune boo newul rek zéro voix nga fa am kon fu toll ni Mbour nga xam ne ci électorat yu gën a mag la fii ci Sénégal ñu ne la Mbour googu zéro voix lañ la fa bëgg a defal loolu Yewwi Askan Wi mënu koo nangu xalaatuñu ko nangu kon lii ñu ñu bëgg a teg duñ ko nangu liggéey boobu nga xam ne liggéey nañ ko ci ay weer laa wax liggéey ko ay at lu ne ñu jat daj ko ba egsi fii duñu ñu nangu ñëw ba tey benn préfet wala benn sous-préfet toog fële ne moom ci loo xam ne teguwul ci fenn mooy xëy rek far loolu est-ce que sous-préfet yi xam nañu. le travail bi nit ñi di abattre ba war a mën a andi dossier teg ko seen table est-ce que ñoom xam nañ ko est-ce que sous-préfet yi xam nga mois j'ai été fonctionnaire je connais la fonction publique mais bokk na ci li ñu war a xoolaat ci formation fonctionnaire bi mooy ñu génne ko ci cadre bureau bu muy tëju mu xam li mu war a gérer li mu war a régir environnement socio-culturel bi ne ci autour yépp parce que préfet wala sous-préfet bu toog bureau xamoo fu nit ñi jaar ba egsi xamoo lu ñu daj nga ñëw ñu jox la ay ndigal ngeen jéggal ma mais ñu mel ni ay dëmm yu jëfuur di toog rek di di di góolu liste yeewi askan wi di xool lan moo ci manqué ban signature moo ci manqué ban xam nga suñu bëggoon rafetal mbir mi sax dañu ne am na ñaari list wala ñetti liste Benno Bokk Yaakaar yu ñu rejeté benn sous-préfet mënu ma ne sur l'étendue du territoire list Benno Bokk Yaakaar yëpp matoon nañu bi ñuy ñëw sànq wax naa ko sous-préfet Guédiawaye nee naa ko on va te poursuivre personnellement parce que amul droit rejeté te jaarul sax ci commission te lim bañal liste Yewwi Askan Wi mu ngi koy nangul yeneen liste yi parce que liste yëpp ñëwoon ak dossier yu manqué as tuut mun na